ngay man di jot vidéo yu am solo yi bàyyi koo fii ci HDP religion da bés fii ñu sabone boo noppee ñu ci kolos bi waaye fi ñu toll bu ñuy bëggoon a jàng doxiinu sëñ Mourou Sayid xanaa yaakaar naa duna amal njariñ ñuy jàng naan ñii la daan solee aw dalam mbaa ñii daan kaalawoo mbaa ñii daan waxe mbaa ñii la daan doxe waaye alxuraan daf ñoo jàngal bu ñuy jàng bu ñuy jàng jaar jaaru nit ku baax danaan cuqet la ca ñor rek lañ ca war a mën a jëriñoo rek mu jàngal na ko kon buñ koy jàng li ci gën a ñor mooy ñu jàng ci moom ragal yàlla googu yi nga xam ne mooy gi li li jëkk ci melokaani kiy defare tam melowoo woon ko ba kenn nattabi ko jàng ci moom ñëwuk xel ba adduna du la mën a bët du la mën a jaar fen jàng ci moom ak takku jàng ci moom ak dogu jàng ci moom ak taalibe ku dëggu akum jàmbaare jàng ci moom yanu responsabilité nangu responsabilité lii njëlbeenu li ñuy jëkk a tegtal ak ragal yàlla moom sëñ Moussa mooy wuutu gin jëkk a wuutu Sëriñ Tuubaa te ñëpp d'accordool ko loolu képp benn tegtal la ci ak ragal yàlla ndax sëriñ Touba bu muy woote jëlut ay ngànnaay ni force ngeen topp si ma dafa jàngale ba mu jàgg mu ne képp koo xam ni njàngoom kese moo la fi indi woon demal see ku bëgg ku bëgg lii ma bëgg topp si ma ñenn ña dem ñenn ña topp ko kon mag ña ko toppoon du ñuy def ay borom xel yu rafet la du ñuy jaahil ay borom xam-xam lañ ñu amoon dignité lañ ñu bëgg yàlla lañ jëmoon fan dañ koo xool ba mu doy leen ñu topp ginnaaw bu sëriñ bi jógee ñooñee ñoo xoolaat si saa segg ko ba mu doy leen ñu topp kon loolu ab tegtal bu leer la ci ci ni la xooloon ba gis ci sëriñ dañ ko gis ci moom moo tax ñu nangu ko topp tax daana wax ni man de sëriñ Tuubaa ma jur waaye nag juba ma noonu dafa am doomi Sëriñ ko la waaye jiba ma doy la daan wax bokk na ci ragal yàlla am daan moytoo soppiku di ko digle it ba tey ndax discours bi mu njëkk def ci bi ñuy ubbi bi ñuy teg xeeru jumaa ji da caa digle ni na ngeen di moytoo soppiku ginnaaw bi mu digle ak ragal yàlla ba noppi moytoo soppiku ndax ndax kat nit ki lu mu gis ci boppam ci xéewal bu soppiku mukk ndare bu dafa soppi na daan doxee bu soppee nag ni mu daan doxee diggante ak boroom yàlla soppi na daan doxee ak moom sëñ Modou Galaw nga ma daan wax ni ma man de sëñ Modou Sa ma yar mu ne ko waaw mu ma adduna li ci biiram xam naa ci sama bopp ne amoon adduna li ci biiram xam naa ci sama bopp ne du tax ma soppi ko sëñ ko yow Moustapha gërëmal ngir yàlla fàttewu la te fàttewoo ko yow ndam lépp topp na la ba yàlla àttee ñu xëy fam fiir yi jox la ba tey taxul nga soppi ko aslëf kenn jëtu jëtuwu la taxul nga jët nga soppi ko aslëf kenn jëtuwu la bokk na ci li ñuy jàng ci moom ci ak taalibe muy ginnaaw bu fi sëriñ bi jógee li ko jëkk jëkk jëkk ñor mooy liggéey bi fi sëriñ bi bataloon muy jumaa ji moo jëkkaloon itam amatul itte ngir itte jooju première xutba bi mu jëkk def bi muy teg xeer wi di taa wax ni na ngeen xam ne ak murit du waxe kese rek waaye wax lay doon jëf ñëw dëggal ko te liggéey bii Sëriñ Tuubaa moo ko digle woon te waxoon na ne bu ngeen ko defuti ñeneen dinañ ñoo def takku am akuk dogu mooy jafe-jafe yi jamono bi doon jànkonteel jamono boobu bu amul ak takku amul ak dogu dara du jàll ndax dem nañ ba ni ko train bi war a andi bagage bi njëriñ bi la war a mën a yem fa la mën a yem mu sacrifié dajale murid yi yenu yenu ay xeer ba teg raay bi ba mu ñëw Tuuba ngir rek andi matériel ngir jumaa ji mën mu nekk ci ba guerre trente neuf quarante cinq lépp taxaw ngir guerre bu metti loolu moo taxawal liggéey jumaa ji ba ni mu fi jógee bàyyi ko solo day jóg da daan xam ne ci àdduna yit ni àdduna koo dajeel ci adduna mu ne day wutee ab naflaay nee ko na dëpp ngir dafee amut waaw ku ngeen dajeel mu ne ab naflaay la tax soxla ci àdduna nee leen ko na dëpp ndax amut loolu la jàppoon ci àdduna bi mu demee ba di fi jógee bi ñu ko bi ko docteur bi xoolee dañu kii ñàkk nelaw daanaka moo ko gën a jàpp mu ne seetlu na ne fukki at ak juróom-ñett yi mu wut Sëñ Tuubaa nelaw guddi daanaka def ko bëggoon ku am fulla dinaa wax ni fulla yàlla du ci bindal kenn bàkkaar waaye ñàkk fulla yi yàlla du ci bindal kenn ab yoon loolu suñu sax daf ko wax bëggoon ku am fulla kon loolu ay tomb la yoo xam ni day jëm ci wàllu royteef